comme ko ci waxee rek. Mm-hmm. man defe naa li ma gis si semaine bi passé mm-hmm. doy na waar. parce que tamit mm-hmm. euh, ku ne si biir kaar nga am osé wu jël xeer sànni ko. xamoo verre yi nan lay def ci bu ko ci bët tëj. footballeur amul lu bët vision. mooy football tey jii xale yi ñaati xale ne ci biir kaar boobu nga osé wu jël xeer sànni ko bu xamoo verre yi nan lay tojee bu duggee seen bët mooy ñooñu pare nañ. comme ni ko ci waxee lépp dañ ko war a commencer ci base yi mooy ci kër yi parce que tamit comme ni nit ñi daan ñëwee stade ñëweetuñ ko li ko war a mooy violence kenn nangootul ci sa doom ànd ak moom dem stade parce que wóoratul daw benn nit moo gën nga dawandoo ak ñeenti nit di leen ñëpp nga war a leen protéger loolu du lu jaadu mooy football bi eh, nit ñi dañ ci war a xamante comme ni ko coach waxee violence bi da daan am ci. communication exemple ma mën naa ko jox sama bopp man ak Henri Camara bokk ñu masuñu bokk club lu dul équipe nationale mhm. mais avant match li ñuy waxante ak li ñuy defante ci biir terrain bi mais bu ñu paree ñu ñaar ñooy ànd mhm. supporter nañu noonu ñii dañu yëpp mhm. loolu violence comme ni ñu ko waxee dinañ am si communication entre joueur ak joueur entre yooyu mais warul mën a génn ba ci biti ba match jeex ñuy gis li ñuy gis nii rafetlu wuñ ko man yàlla def na peut-être gis naa man dama defoon sax Ousmane la adjoint bi parce que dañ ne ma adjoint. Euh, coach waaw après laa woote parce que ñoo dëkk. Mm-hmm. ñoo dëkk moo woo frère am ne ko la ma xoolaat affaire ñu envoyé mu ne du Ousmane. Mm-hmm. mais loolu rafetul loolu bu daloon ci bëtu waaju nan lay demee. Mm-hmm. du lu rafet daal rafetlu wuñ ko moom wax dëgg yàlla. Pape. waaw bon moi je reviens li coach wax ak euh, Pape Niawar. bon violence ak si c'est vraiment décevant parce que amna yo xamni mm. ça ne se fait pas. dañ ko doon jiiñ waa lamb de waaye li mu football li mu ci def léegi waa lamb ah ñu def lamb agression la ñeen diñ ñoo ma fo combat bi day jël ñom ñi agressé waate. ñom boy booy dañuy agressé mais football bi mom joueurs yi sax légui pour ñu dem di football sax légui ils ont ils ont la peur au ventre. ça commence à devenir euh, très.